en France va être dirigé exactement les quatre pays euh, c'est euh, euh, mhm. li nga xam ne comme citation daal di toll si que 4000 signataires am déjà est-ce que par concrètement pour signer pour peut-être participer au rapatriement de Macky non non hmm. d'accord romachi ci Direct. rapatrier parce que l'état d'accord romachi hmm. ci mën ci cee ci bari benn Sénégal aadawul loolu xamut loolu euh, gis nga président de la république bu demee ba fu wàcc nañu ko bàyyi mu wéeru man loolu laay digal président Ousmane Sonko nañu bàyyi Macky Sall te bu leen sénégalais yi poussé ci asi que non bon topp topp ji nga topp bi sax seex bi nan topp ñuy rapport yi épingle rek cheikh bi Sénégal dafa waru a ci yu melni mais ñom général Moussa Fall ak. képp ku ci défon lu dut yoon mu lér na li nga défon du yoon ta Macky Sall falon la nala yoon top ba jeex tak mais ñu dégg ñom dambo ñu né su nekké mënu ñoo japp Macky Sall donc. neen bàyyi man ci exemple. ci mi au cœur justement leuse ci. mënu ci xam nga la ma ci. Hmm. mooy président Blade daf fee jaar ñu fekke ko président Blade malgré li def Sénégal waaye lam yàq bari na yàq na lu bëree bëri def na ñu bari ay milliardaire te dara leeru ci ba tey jii nii dara leeru ci ay milliardaire la créé ay nit yoo xamante ni ci lañ jaaree am daraja am alal ba tey benn ci président Macky Sall miy wàcc. ci nguuru Abdoulaye Wade hmm. la amee daraja ba tay hmm. kon tay moom kon xana mom bañi top ñom ñoom eh, Fambe gaynde nopp waji fambi femme Bawal tam tam ki won walo tam ki won ori tam yi tam tam ay de jong hmm. bañ leen di top, topp Karim Wade lu woro lu waroon a téye ñu def pendant dara contre Abdoulaye wad mais du sax ci Sénégal Sénégal di topp ab président donte que Macky Sall def nañu lépp quoi. mais aujourd'hui la pression sabote non Macky def nañu lépp man maa ci d'accord waxuma loolu warul am de il faut gars ñu ñu ñu ñu ñu déggante quoi. man si si si ñuy déggante. maa si d'accord sa opinion sa propre opinion. non man maa si d'accord d'accord pour ñu indiwaat Macky Sall waaw. wax ma warul am de. mais am na ñoo xam ne ñoo du nga ko war a indiwaat parce que dafa que des fois torchon bi day brûler entre le Sénégal ak li nga xam nekk moo di la France. Hmm. gëm naa ko gëm naa ne Macky am na tuuti patriotisme bu nekk ci moom boo xamante ni bëgg na Sénégal ay maamam Sénégal fi lañ juddoo Sénégal la xam en fait ay pour xàññ Sénégal ban njëriñ la koy amal après bon dañuy waxtaan rek président Macky Sall jóge fii. man def na ma lépp tëj na ma kaso lu baree bari feebar naa opéré nañ may tout ça ñàkk naa fi liggéey lu bëree bari yaa ngi mais lii moo taxoon ñuy xeex pour mu mu jóge fi ñu teg fi leneen mais ne ne xeexu ma pour bu fi jógee ñu topp ko waaye Macky Sall daa falu ba pare fal ay wéyu fal ay bandi fal ay saay-saay fal ñoo xamante ne nii tey lii ko dal nii yëpp ñoom ñoo ko yóbbee. te ma see xam na ko. était mal bien sûr Macky Sall dafa yéex a comprendre ni moom mu ngi ci biir pax mi daa toggoon rek di guuxi la xam naan lu fi amoon dafay amaat fekk am na ba passé xoolal bal bi dóor nañ ko ba mu jàll moom mu taxaw naan non li fi amoon dafay amaat fekk. Hmm. prix jeex dañ ci dañ ci war dañu war a ajouter benn benn mbir xam nga mooy lan mooy politique da koy def ci buñ la falagut. buñ la falé ba paré nga ni ñu politique fe dem falu dem liggéey ñun loolu lañu gëm mm. man loolu la gëm samay morom yaaka naan loolu leen gëm ñu bëgg Sénégal tamit loolu leen gëm président Macky Sall wacc na faloon na ay wuyoo ki say say créé won fi ay groupe média yo xamante ne doon nañ leen jox 1 milliard et demi manam ben milliard ak xaj bi daan nañ leen ko jox at mu ne muy TFM ji ñu yor sabar teg ko buntu gar Macky Sall di deug yor sen ay studio jaglel ko president Macky Sall ak ay nitam di saga ña nga xamante ni yor mi tay ah cheikh bi loolu moom du suñu digënté ak Macky Sall waye suñu digënté ak rapport ya génné ni ñi ñoo def ñi ñu man dal buma sañon hmm dañ bàyyi Macky Sall mu dem ci yoram bu rafet bobu non muy dem. jàppee ñu jàpp ñeneen ñi. ñu mu ñu jàpp gars yi quoi. maanaam yoon def liggéeyam. yoon na def liggéeyam. léegi yoon su waree jàpp mu jàpp. waa bien sûr bu fekkee dañ lay jàpp. Hmm. montre bu yaa ko sax yaa ko saaj. ah hmm, hmm. yaa ko jëndal état bi ne montre bi yaa ngi ko jëndee treize millions fekk montre bi treize mille loo def surfacturation nga def. soriatari écart soriatari oui ah, yooyu fa femme bi nii ay tàndaram la doon jënd ah bi. <laughs> état bi la doon jënd femme bi li ma leen jënd bëriwul <laughs> am na ci yi. ah ñoo mais fexe na ba def ci ay six cent xaw ma soixante six milliards millions xaw ma man daal li may ñaan ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñoo lancé loolu man du ma ko signé. mandataire waaw ah, man d' accord ma si. d' waaye nag bu ñu sañoon. Hmm. ñoom ñu xool yeneen porte yu ñu mën a jaar ñu ubbiwaat Sénégal jubale Sénégalais yi juboog Sénégalais yi jàmm am saagante yi. opposition nag mënta ñàkk. Mm-hmm. nañu opposé wu ah gars yi nañu opposé wu. <coughs> waaw loolu euh, fa laa fa laa bëgg a ñëw exactement l' avenir de Barthélemy Diaz Khalifa Sall euh, ñoom Malick Gakou ñoom Bougane Gueye demul Nicaragua. kan moo ci Bougane mooy kii. Bougane Gueye Dany borom deuxième tour nee deuxième tour ah, ah, ah, gis ginnaaw mais texan yi dafa lëlu xool toog ah pour moom gars ni ko dafa waare naa la wax benn affaire Cheikh bi hmm. euh, réew mii tey daa am jóge mu jógee te ñun gëm na ni daa am fu mu jëm euh, opposition bi hmm. nañu pare pour opposer wu mais ñu teg ko ci ay idée ñu teg ko ci xam-xam ñu teg ko ci dal gaay talon nañ fi Auchan ñun dañoo wara dem tal osan, man ñii ma gis ni mom xamna ni du na xeexkat te ñii ma gis ñu falu ni du def lu tax nit ñi di xeex kon xam rew waram di am bo mo tax ñi ngay wax ñi ay bugaan ñi anam sax ñom ñep mm. ñi seen pax yi tok <laughs>

donc instant bi élection su amoon waxtu du nekkaat maire de Dakar. ah non nii nii rek nii nii borom Dakaru neexoon mu ko déléga délégation spéciale ñu jàpp xam nga gars yi yow Fatou Ndiaye bi bi ñu renoncé élection yi da doon fecc bi ñu nee yi poussé nañ ko. vidéo la def di fecc naan élection du am. Hmm. te am candidat. Il n'était pas, prêt. Il n'était pas prêt concrètement. Non, parce que. Xam ni Macky Sall du gagné. Xam nga ni ki mu àndaloon. Khalifa Sall. waaw du gagner. Khalifa 2024. <laughs> fa 2024 fa yem des fois ma ñu booy sorti ci sen ki huile. ma yéen a ngi taqal yére Amadou Ba ak yere ki euh ki num tud Khalifa Sall ci kaw affiche c'est-à-dire ñooñu amuñu ñooñu ci sen sànni tàcc lañ ñëwoon. yu mbëri leer na opposition bu bees nag mooy ñëw am. Mm. xam nga jàppoon nga ni wala yow wala sa man ak keneen jàppoon na ni bu ñu fatee <laughs> diw bàyyi diw diw dina génn ci parti wala dina génn yëngal du am de. ay si may waa si si waa Benno ñoom ñu ngi opposé wu jamono ji ñoom Alioune Sow ah euh, bëri na ñoom Moustapha Diakhaté et tant d'autres et tant d'autres. kay Moustapha ah, seen ah, paa bi. ñoom Fodé Ndiaye tam bi ñoom ñëpp ngi opposé wu de ak ñoom ba Diakhaté mi ñu jàpp tey. mais c'est sëñ Vous faites que l'homme opposition n'a nga comprendre opposition nit ñu taxaw daggal nit ki ay saga ko de tous les noms ba pare Nous jël la yow sa Nous ñu jël la nga né yow opposant femme bi buntu ci nga yu hmm. ko ci Ousmane gis nga yu nii bu ko président Macky jomaay euh, fay bàyyee mu jàll. Hmm. moom dootul gouverner ci jàmm. ok dinañ ko saaga responsabilité du ci mën dara. ndax Macky Sall benn instant li tax mun neexoon ma. Hmm. bandi la moo tax mu faloon ay wuyu ne leen ku ma saaga ñaf leen ko ci kaso bi. kuy waaj a sonn ku may waaj a jàpp ni peut-être. kun kun ko si def nga yaakaar ne dafa fayoon teel dafa am moo tax. gaw ma lool de moo tax moo tax ñuy seral jamono. gaw ma lool de seral hmm. de. jàpp gaay ñu commencé jàppee. ah baax na. donc d' autres arrestations mu nekk ko xaare nii. Ah, c' est vrai. alors lay jaajëfal bu baax. amoon na solo. waaw sëñ Fallou Galas. di la jaajëfal di jaajëfal Sénégal yëpp. di ñaan jàmm ci réew mi toujours rek comme ni nga koy waxee. Hmm. gars yi neen internet neen na moo neen da trop. waaw ñoo leen raw ñoo leen raw Euh, ñun lii rek moo taxoon ñu nekk ci terrain bi ak ci kaw chaîne bi. Euh, bari na luñ ci am luñ ci perte bari na loo xamante ni tamit am nañ ko ci ci ubbeeku mais loolu la yàlla dogal. Hmm. damay fàttali sama moromu activiste yi activisme du métier du liggéey na gars yi dellu ci tool yi dellu ci atelier yi ñi dellu ci studio yi. ñi dellu ci place yi ñi ñi war a yor fas ñu yor fas ñi war a dem maçon yi ñoo xam ne dañuy liggéey. fi ñuy dellu assemblée nationale.